Euh, sur la question et ça nous amène même à demander euh, ci discours ñu retenir moi tenir muy ces candidats là yi nga xam ne daañu euh, euh, euh, majorité bi ban discours nous retenir qui diable tenir <laughs> ci jëmale ko ci sénégalais si on sait que les ko Ablaye Légui, depuis 2012 nous comptable lañu ci bilan bi fi aujourd'hui lan la ñu war a def ba sénégalais yan yan discours nous retenir war tenir sénégalais mën leen déglu en fait en tout cas Mamboy <laughs> moom tàmbali na dégg nañu lu mu wax c'est comme si c'était li ñu jotagum dund 2012 ba léegi moom vraiment euh, bokk ci quoi il n'était pas comptable. waaw mais c'est comme euh, Ablaye li mu li mu li mu li mu résumé parce que man ci l'habitude de dire gëwuma ki nga xam ne nga nekk ci benn mbir. Euh, ba processus bi jeex. da koy assumer parce que ñoom buñ ñu leen xamee mag Sall moo tax ñu xam leen. Mm. buñ ñoom ñëpp nag autant qu'ils mm. ku ci am tour wala nga am ci dayo avant Macky Sall di ñëw xamoo Aly Ngouille Ndiaye xamoo Mame Boye Diao xamoo si ñoom keneen ko xam ni am na si dayo boobu mhm. bu ñu waxee ne am na leadership politique fonction yi leen Macky Sall céralee moom moo tax ñu am leadership boobu kon mhm. ils sont comptables du bilan de, de, de Macky Sall ils ne peuvent pas ne pas assumer je crois que même du point de vue politique même dans la communication on va assumer hmm. les nga xamante ni mon moyen c'est assumer les nga xam ni mooy si bilan parce que si lañ bokk hmm. parce que Mame Boye de li mu yoroon moo jëmoon ci wàllu eh, l'impôt yàgg na ci Aly Ngouille Ndiaye yor na fi intérieur keneen ak keneen ñoom mais euh, Macky Sall moo nekkoon président léegi fi mu toll nii gars yi ku si nekk tamit calife à la place du calife benn fauteuil la ku si nekk léegi nag di nga xoolee noo ci sa euh, seetalee sa bopp parce que quand tu entends ki taxaw ne la un Sénégal nouveau ça veut dire que yow Sénégal bi nga nekkoon amoon ci ay cër doxul woon quoi <laughs> mais léegi la moo tax yow amoon courage yu ca booba ca njëlbeen nga ne man kat lii gëw ma je donne l' exemple de Malick Gakou par exemple il était un allié à un moment donné boobu léegi mu ngi ci opposition quitté na jël une responsabilité comprendre mais parfois responsabilité il nga yore daf lay rattraper aussi maintenant dans l'électorat, les gens vont regarder sénégalais ils vont a yeewu Vous faites fekkee ne gars yi jàpp nañ une teg candidature pour mën négocier parce qu'il y a un nga ne Abdoulaye proposé un premier ministre par exemple parce que là, ba keroog candidature di candidature lu ne xaj na ci parce que ba tey am a ay négociations yi am ci parce que par étape par niveau la am ñoo ils ont posé leur candidature parce que bëgg nañu ñu sóoraale leen. Mhm. bëgg nañ ñu cër lañ bëgg xam nga temps temps boy suñu babi dañuy def jamm wiri ñoo mhm. babikat yi ñokay xam quoi. c'est-à-dire wiri xaar comme Saliou Sow wax deuxième tour su amé ku si nekk yàqalante bi nga ñu mën la cëral. Mhm. par contre beneen bi mo ma doon réagir sànq je crois du point de vue politique euh, mën nga def ay portraits yu bëri ah parce que euh, Macky Sall moo am un appareil politique ça aussi il faut là il faudra le dire c'est am na électorat boo xam électorat Macky Sall laa Macky Sall bu nee Mouhamed Diop la andal Mohamed Diop di battre campagne muy ànd ak Mouhamed Diop jël ay dooleem ak ay moyam ànd ak Mouhamed Diop pour man c'est un soutien de taille parce que yaa ngi dégg biir affaire ñu bëri dañ na la ñun ku Macky joxoñ lañ xam lu Macky tànn lañ tan n'est-ce pas yaa ngi gis lo bien sûr benen bi quand je dis c'est hautement politique. Mm-hmm. Euh, Boun Abdallah Dionne depuis des années il n'était plus aux affaires. Il était un peu en retrait. Moi, quand je te dis, Macky Sall élection présidentielle si plateau fil à ko waxee woon bi mu fi dindee poste premier ministre ñu ne fast track maa ne Macky fast track taxu koo jóg. au contraire man dama gisoon ni sax non sens la président nga nekk ci kaw nga bëgg coordonner l'activité gouvernementale mais on a la defoon ñi mu dindi woon tey ñooy candidat. Mhm. dafa dindi woon Aly Ngouille Ndiaye dindi woon Amadou Ba. dindi poste premier ministre ñu dindi ko ñu toogaat Amadou Ba lan la bindoon sama loyauté amul variable nangam sangam ñoom ñëpp kenn déggaatu leen. Mhm. Macky ñëwaat indiwaat leen dans le jeu kañ la leen indiwaat parce que après élection yi Boun Abdallah Dionne moom moo dirigé woon la liste législative. Mhm. en tant que premier ministre bu ko fa bàyyi woon ñu njort ni Macky Boun Abdallah Dionne moo ko nar a wut. mu nekk beneen querelle de leadership mu dindi loolu pour ñëpp maase. Mimi Touré saa ñu ko dindee mu gedd ñoo am lu ñu ko gérer ñii dind nañ leen waxuñu ils n'ont pas pipé moom tey ils sont revenus dans le jeu politique c'est-à-dire Macky balaa muy toog naan du ma candidat wutoon na moom dans sa kan la am ba pare donc yeneen yi ñu doon wax ni yëpp ay formalité la woon <coughs> ba pare mu réussir coup de communication politique waaw la si Macky réussir créé na ci benn suspense donc pendant des jours li ñuy waxtaane kan moo war a nekk candidat kan mooy nekk candidat kan moo war a nekk candidat pourquoi génnewu ko depuis ca ca njëlbeen parce que mu ngi doon ratisser le terrain pour defar li nga xamante ni fa la jëm parce que man euh, sur le plan politique euh, c'est pas seulement Amadou Ba y a un appareil politique qui est là mais Amadou Ba au-delà de de l'appareil politique de la paix est-ce que il aura gagné le pari mm-hmm. de d'avoir un autre électorat comme en surplus. Salut Joseph, sur euh, <coughs> le avec le discours qu'il a, qu'il a tenu. Qui hmm. euh, Non, euh, être, candidat et être dans une équipe ne, pas, ne, sont pas pareils. Mamboui n'a pas été à la station des ministres. Qui cursus président Macky Sall. Il a toujours été un directeur. Donc, directeur, il a fait un département qui un ministre beaucoup coordonné Bo, xam mom mom ci pour dem conseil des ministres euh, information yi fay au-delà de ça il nañ ne un rapprochement avec le président mm-hmm. tous les directeurs généraux dinañ un avec avec le président de la république sur le plan politique il a toujours assumé également <laughs> sa position euh, ci avec euh, les politiques yi nga le président Macky Sall Minkodon, déroulé de 2012 à nos jours il faut comprendre la politique Mon bindo nono da ngay ànd ak nit bi ci période bi nga xam ni mooy diriger ngay ànd ak moom di ko jàppale di ko défendre di ko yedd ci biir parce que ay audience day am parfois nga gis ni avec Mohamed Diop la bouteille d'eau ne devrait pas être là-bas mais du ma ni Mohamed Diop bouteille yu ndox bi warul ne foofu j'attends caméra yi pousse man la Mohamed bouteille yu ndox bi warul nekk foofu yow nag mi nga xam ne yaay kilifa gi yaay jël décision au conseil bi ma lay jox ndax da nga koy doxal wala doo ko doxal ta buñu la nommé dafa am vision bu la jox secteur dans un programme établi par le président de la république pour exercer muy développer les politiques de la nation mmh. Yaw y étant un acteur da ngay subir ak di défendre équipe sur le plan politique et de ta gestion Waye bu yeggé ci yaw nga wara taxaw ngir am alors je vais voir la conclusion du discours de Mamboy parce qu'il a dit que le président Macky Sall a un bilan matériel bu re bu bu jaar ba tax ñu bari bugguñu mu bokk. et il a salué étant son mentor et il l'a remercié de l'avoir fait confiance ci jamono bi mu koy jox loolu yépp donc il faut que nit ki ngay jàngat ci contexte bi taxaw bi muy wax parce que nga far ci mbir dafa am nooy doxalee ci biir bi nga taxawee pour jël lenge yi yow taxaw dafa am beneen kaddu boo xam ne beneen démarche boo xam ne beneen taxawaay boo xam ne moom ngay indi li Ndeye Fatou wax mooy li wér damay saluer bu baax a baax la démarche de Aly Ngouille Ndiaye quand tu n'es pas d'accord tu n'es pas d'accord hmm. doo ko fa xaar da ngay wane ni lii d'accord ma ci te Amadou Ba en cette période xaw ma ndax remaniement dina am xaw ma amagul il est le premier ministre il est le ministre des sports il est le ministre de l'élevage, il est le ministre de l'agriculture, il est le candidat du, de, de, la mouvance. Mm-hmm, mm-hmm. Ah, parce que de fait bu ministre démissionnaires le chef du gouvernement fay mm-hmm. ngi ci loxoy Amadou Ba fim tol ni mu mm. kon li nga xamni tay ji moy li war ci taxaway bi nga xamni gis ci destin politique en main parce que l'unique constant dans leur groupe c'est le président Macky Sall li mo japp ni mom mu ngi ko doon wax ak mom, japp na ni waxum biir la li nga xamni mom lay wax japp na ni teunk nako sax ci livreum ba gis naa ko mu yëkkati ko ni le Sénégal qui vient dina dem publier ko peut-être loolu dina ci indi gis-gisam ndax mën nga doon ministre dans un gouvernement wala hmm. doon le premier ministre tu peux avoir des propositions auprès du président de la République mais c'est à lui que reviennent les décisions moom voilà I'm la a wax am ne directeur mais ça arrive. si on sort les 14 du du régime. on mhm. euh, na régime par exemple nous, le CNTV, TV a kanam qui est pourtant deux heures de temps à mais image bi dama la bëgg wax ni que dañu bok ci système héritage ndonok liguey ak bilan wu Macky Sall parce que si lañ fës si lañ leen xamé si lañ leen ragné mhm. ñom loolu dañ koy yobalé mënuñu fexé ba nit ñi duñ leen fatali sen responsabilité bi nga xamante ni am nañ ko ci régime bobu c'est comme sous sous le régime de Wade d'accord ñu bay ko ki nu mu mhm. euh pa ba sama Paa sëñ Mbacke Ndiaye lan la <laughs> ministre porte parole mais daa mën a fexe ba duñ ko boole si régime est-ce que daa yore ay ministère infrastructure wala dara. d'accord sëñ bi ñom ñëpp dañoo lekk ci soos bi seen loxo tak na ci soos bi. d'accord looloo wàcc. daanaka seigne Saalum ñu dem. ci là n'est pas la réponse c'est-à-dire hmm. man je parle sur l'intervention dans son discours bi nga ma laaj yow Mouhamed. loolu laay wax. Kanta que ñom dañu bok ci régime bi. bokon soos de koy commencer ca Lansana Gagny saxo ci la bokk moom it. ca Aminata Touré ba ca ñoom ñëpp. Ah, ils sont tous pièces loolu c' est déjà acté. bien loolu du man maa koy wax. Mm. sénégalais xam nañu ko. Mm. ndax mi yóbbu nu te xam nañ li fi xew. ci li may wax mooy discours bi nga ma laaj tey. bi mm. mam booy jaaw tenir li nga xam ni feeñal na ko te bu nekkee ci biir nguur gi. wane ko woon ma di la xamal ni boo doonee directeur général dafa am fun la teg am luñ la won loo te groupe boo ci nekkee du da ngay yedd kilifa gi ci penc ci biir ngay wax ak moom. ay conseil c'est clair. te conseil yi nga koy jox décision bi ci moom la ñëw mu appliquer ko wala mu ñàkk ko appliquer. loolu mooy li nga xam ne lu am la leneen li nga xam ne nag moom laay saluer mooy démarche bi Aly Ngouille Ndiaye am. très bien parce que quand nit boo d'accordul ci dara. da koy fës. non seulement da ngay wane ni d'accordoo ci. waaye dangay ngay jëf-jëf ju ko wane. tout à Ali dafa wane ni je ne suis pas te itam bàyyi naa. ndax dama ko joxoon sama kàddu taxaw di ko déglu ci lenn def ñaari proposition bu ma tànnee ma dem bu tànnee Mohamed bun Abdallah Dionne ma topp ci ginnaawam comme nag deful loolu la nga xamante ni mooy cëram moom la def <laughs> d'accorduma ci bàyyi naa loolu nag loo xam ni la dañ ko koy nangul te rafetlu ko ci doxali ndax Sénégal dañu am aadawu nit di tënku ci li nga xamante ni si mooy kàddoom président Macky Sall bu applaudir c'est parce qu'il a dit une chose et mu d'accord je ne ferai pas de troisième mandat et il ne l'a pas fait Aly Ngouille Ndiaye ba a joxee kàddoom hommes, ko caa teg ca loola ba ñu ko invité dafa dafa ni je réitère ma candidature te Ali Ngui Ndiaye quoi que l'on puisse dire tous les gens ont investi Macky Sall a pas mal de candidats à la candidature de Benno Bokoyakar. Yakaar avait investi le président Macky Sall il était le seul à ne pas parler de la troisième candidature

moo ca bokk yam kër moom bu ne ku fa tëgg geneen dënd guddul dëndu boroom kër da fu fanaan boo ko fa tëggee xamul nga ni ca biti nga jëm. boo nekkee si ndam. alors day xaar bañ sepp euh, euh, euh, sa loxo. day faatu yow nga sa démarche di ñëw di nga ñëw am naa sama responsabilité. Cheikh Omar ma sama bopp ànd ma ci dogal bii. damaa jël sama yoonu bopp. li Macky Sall jël waa PDS seen yëpp ne la am leen Ali laa fe kon kii Bon, xaaree décret ça veut dire regain politique bi nga ci am Sénégal affaire euh, pendant des années bu la mm-hmm. mardi tu l'opposant non je loue son courage hein. waaw parce que période bi nga xamante ni Sonko dafa takk essence takk di takk. non non kenn sañu ko teg loxo. c'est-à-dire moom en cette période en cette période il affirmait sa position de son affinité avec Ousmane. courage courage pour courage. personne n'a parlé non non ci li ma ciy wax. yaa ngi yaa ngi xool fële bon maa ngi lay relancer rek quoi naan la Ndeye Fatou Ndeye Fatou yooyu. yaa ngi nelaw alors justement sa réaction par rapport ak. Euh, mbir mi et surtout. au delà coalition kër gi coalition dëkk ba. voilà du discours de Mame Boye Diao au delà de son discours.